salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñoom di leen jox seen way di leen namm namm seen jataay namm seen àndandoo ñu xaw a gëj a déggante lool nag ci réseau yi ñàkk jot ak nekk ci liggéey bu bare bare moo tax loolu am waaye xam ngeen ne daawuñu gëj a déggante ñu bari envoyé nañ ma message ñi woon nañ ma lu tax ñu gëj a dégg bëgg nañ sa waxtaan ci lii ak ci laa ak ci lële ndeysaan ma awana na am tiis ci loolu ndax ñi ngi bëgg a yàgg ci àndandoo bi di waxtaan di weccee xalaat ngir li nga xam ne moo ñu boole te yéen ñëpp ngeen xam ko ma di ko bamtu bés bu nekk te mooy Sénégal ba tax na ñaare bu ma amul jot lool lool nekk ci yitte yeeg liggéey beeg njaboot geeg ak liggéeyu ñi nga xam ne ñoom la xeex ba fal leen tamit liggéey boobu liggéeyu suuf la ci wàllu xalaat wàllu projet wàllu yu baree bari yoo xam ne tamit dañ ci indi suñu xalaat ndax comme ni président Ousmane ko waxee rek duñu fal Bassirou Diomaye ba noppi bàyyi ko dañuy fal dañ koy fal ba noppi ànd ak moom di ko gunge di ko jàppale ngir mu mën a am ndam ci li tax ñu fal ko ndax jëmmam ji taxul ñu fal ko mu nekk ci palais bi taxul ñu fal ko utaluñ ko nguur dañ koo fal ngir mu mën a jëmmal suñuy mëbét suñuy bëgg-bëgg te mooy lan tabax senegal gu ñëpp mën a gis seen bopp kon duñu ko bàyyi ndax moom dong mënu ko am na loolu daañu ko def ci kaw mooy lii ñu nar a def ak yéen waxtaan ak yéen ci kaw ñëpp dégg am na loo xam ne ci suuf la ñu koy def ndax it noonu la àdduna di doxe kon bari na nuñ daan taxawee booba dañoo nekk ci biti ñu dañuy bundu xataal dañu jaay doole dañu tëcc ka rayee ka def lu ne tuumaal ñu ñu am façon taxawaay bu metti boo xam ne jamono boobu taxawaay boobu kese lañ mënoon a am ndax nag ku ñu bëgg a tuumaal tam la dëmm bëgg laa rey tëj ci kaso yi da ngay fippu loo am joxe ko danga nga saaga da nga toj da def lu ne lakk lépp di ko def ngir mën a sauver sa bakkan sauver sa xalaat ak sa bëgg-bëgg te mooy Sénégal gu jag moo tax samay xarit ak mbokk yu bari dem nañ ba mujj gi xàmmeetuñ ma ci melokaan yi ma am ak jikko yi ma am ndax dañu ma mas a xàmmee nit ku dal nit koo xam ne day dox ci xelam lépp da koy xalaat lépp da koy teg ci xalaat ak xam-xam ak argument ak dal ak teey loolu ma ñi ma xam ñëpp loolu lañ ma xamee waaye dañoo dem ci jamono ci réew mi ba yàlla nattoo ñu njiit gu bon bu mel na Macky Sall mu ànd ak ay nit ñu bon ñuy bëgg a yàq réew mi ci jikko ak ci sàcc ak ci fen ba tax ñu jóg na dañuy xeex ñoom ci xalaat ci waxtaan ci jikko ñoom ñu ne déedéet dañuy xeex ak ñun ci doole ak tëj ak ak xupp ak takk sànni ci gi ak dugal ci kaso yi ak damm ak suul ci bàmmeel yi muy violence bu metti ku mel ne man dem ba xam ne lii waxtaan xel mu teey xel mu rafet waxtaan argument du ko soppi mbaam lañu il faut que ñun tamit ñu génne ci suñu jëmm yi jikko mbaam yoo xam ne am nañ ko ndax nit ku ne am nga jikko ju baax ak jikko ju bon kenn amul lu baax képp koo gis ci jëmm bu yàlla bind am na ci biir tabi am lu baax ak lu bon day jël lu baax li mëdd koo lu bon li fexe ba lu baax li di dem waaye bis bu demee ba gis ne mbon lañu ko sëf te mbon googu mbon moo ko fi dindi da ngay soppi jël sa lu baax la teg ko fee ndax ki ngay xeexal xamul lu baax lu bon la xam nga génn ki sa jëmm ji lu bon li nga am sëf ko ko mu abal la kon xeex dafa am technique ci kaw loolu kon ci la demee ba am ndam tey la mu yoroon ñu foqati ko ci moom téye ko waroon nag teg li nga xam ne ñun moom moo taxoon ñuy xeex mu mébét ak projet bu ñu amoon pour defar Sénégal ci la ñu nekk léegi kon waxi Macky Sall moom mi ngi suñu ginnaaw lu dul luubal gi mu luubal ci réew mi ngi di ko topp ba war koo jàpp fu mu nekk ci àdduna bi dañ ko jëli incha allahu rabbi loolu moom maa leen koy wax fii man fu makki Sall mën a nekk ci àdduna bi dañ ko jëli bu fekkante ne tek ubbi nañ ay dossier ay enquête ba enquête yi dem ci Macky Sall fu mu nekk ci aduna bi dañ ko jël lool mom ma leen koy wax man ni bu ko wu deful ak Sonko man dina ko def Macky Sall mom bu soobee yalla du am jamm ci réew mi waaye nag àggaguñu fofu gis na mbokk yi bari patriote yu bari ñi ngi ñaxtu lutax japp jàpp ñu kii lu tax di genn lutax ki di état dafa am nu muy doxé état du caaxaan da nga ñew rek tok di buuma ko bummi déedéet Bassirou Diomaye Faye amul droit ak Ousmane Sonko di buuma ko bummi ndax buuma ko bummi moo tax nit ñi dee ci kaso yi nekk dugg ci kaso yi buuma ko bummi moo tax suñu ndaw ñi bari ñu doon xeex dee buuma ko du bummi moom la si Macky Sall nekkee woon loolu lañ ci bëgg a jëlee kon mënuñoo ñëw di def nam daan def. lu ki nekk dañ koy teg ci yoon jaarale ko fi mu war a jaar ba képp koo xam ne luubal nga alalu réew mi wala mas nga fay rey nit di nga rendre compte incha allahu rabbi lu ki nekk dafa am yoon dafa am fu muy jaar duñu tooñ kenn waaye kenn du tooñ askan wi yàkkamti nag jaru ko ndax lu ki nekk bu jotee rek bu soobee yàlla ñu ko war a def daañu ko def bu ñu ko deful ñi leen ko war a wax daañu génn wax leen lu tax defu leen lii kon jërul dégg nga maam yàkkamti parce que état du mbedd du boutique boo yoree du sa jabar ak sa kër nga xam ne da ngay toog lu la neex nga dogal déedéet état dafa am nu muy doxee doxalinu boppam woo xam ne président bi mënu koo jalgati premier ministre mënu koo jalgati kenn mënu koo jalgati loolu na ko ñëpp xam ñu dalandi teeyandi bàyyendi ñi nga xam ne ñoom la ñu wóolu jox leen réew mi ñoom ñu doxal tegu ci fi ñu war a tegu teg seen i charte teg seeni i lépp teg seen i jëmtukaay ak seen doxalin ngir ñu mën a tàmbali liggéey bi lépp lu mu laaj ñun xam nañ ko ndax ñoom ñi ñu fal du ñu ay doxandéem du ñu ñoo xam ne dañ leen a far ci mbedd mi dañoo yàgg ànd ak ñoom ñuy wax ñuy dégg ñuy bind ñuy gis ñu fexe ba convaincre askan wi ci seen njub ak ci seen bëgg réew mi ak tabax ko ñu bari ci ñun gëm loolu ànd ak futté ko di xex ànd ak ñoom ba jox leen réew mi kon ñom du ñoo xam ne xamuñu leen xam nañu leen ah lañuy def ëlëk ci lo xamne mo moo ñu fal leen xam yéen xam ngeen ko man xamna ko ñun ñëpp xam nañ ko ñom it xam nañ ko te jàpp na na ñom seen xel yi di def leneen lu wuuteeg li taxoon ñu fal leen mi ngi ci gëwuma loolu kon nañu rafet njort ci ñom tey ànd ak ñoom ñag leen gungé leen doolé leen ndax amna lo xamné bëgg ngeen ko ci réew mi yéne a koy ñaxtu té moy ak njub ak justice te ñaar yooyu ngeen bëgg moy li gëna jafé ci aduna justice ak njub réew mu ñu ko masat yëkëti diko fa jëma lal bu askan wa ul wul dolen doolé ñako bëgg taxawal du soti kon ñom ñi nekk ci bop réew mi di président Bassirou Diomaye Faye di premier ministre Ousmane Sonko ak seen gouvernement ñi ñuy nomeeg ñay ànd ak ñoom tout le monde ñi nekk ci état bi yëpp nekk seen ginnaaw di liggéey dañoo la askanu Sénégal nekk ci seen ginnaaw dooleel leen ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy projet bi ñu bëgg a teg ci réew mi te mooy liggéey jub ak justice. kon maa ngi woo Sénégalais yëpp ñi voté président Diomaye ak ñi ko voté lul ak ñi nga xam ne bëgg nañu lu baax ci réew mi bëgg nañu réew mi di ay doomu réew mi nga xam ne réew mi jaral na leen lu ne. kenn ku ci nekk ci yow muy góor mu jigéen di mag ndaw maa ngi lay woo ñu àndandoo maa ngi koo fexe ba doole gunge ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ba jox leen réew mi te mooy président Bassirou Diomaye Faye ak doomu ndeyam premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement am ak ñëpp ñi ci nekk. loolu mooy li njëkk li may sàkku ci askanu Sénégal di leen ko ñan ndax dafa am yu bari yu ñu war a yëkkati ci réew mi joyanti ko jubbanti ko. te loolee dafa am ay intérêt yu bari yu ci waaf tëdd ci ne ganaar gu tëdd ci ay nenam di ko bóof boo ko laalee mu cof la dafa am ay nen yu bari yoo xam ne ci njubadi lañ koy bóofee ay ganaar ñoo koy bóof bëgg koo toccal te buñ ko toccalee dañuy gën a bari ci réew mi cuuj yi màgg di saxal ak njubadi ak càcc ak tappale ak mafia intérêt yooyu nag bu ñu ko bëggee dindi ci réew mi yëkkati ganaar gi bóof nen yu bon yooyu pour bañ mu toccal ko te boo ko jubee mu cof la ganaar goo gee di boof nen yoo xam ne nenu sàcckat lay jur cuuju sàcc cuuju fen cuuju jël ay suufu jàmbur cuuju tooñ la dugal la ci kaso bi cuuju jaay doole cuuju yooyu ganaar yooyu waruñu fee fett ci nen ba di fi toccal ba cuuj gi di màgg di jur yeneen i doom nañ koy fekk ca fa ko ndey ja di buufee ganaar gi ñu toj cuuj yëpp benn bu fi màgg loolu nag dafa laaj àndandoo ak mànkoo ndax ganaar yi kat dañoo boof seen i nen i saay-saay te dañuy cofaate dañuy cofaate xaw ma ndax li may wax dégg ngeen ko wala déet ganaar yu soxor lañu ganaar yu bari ay alal ganaar yu bari ay cuuj ba noppi dañuy cofaate kon dafa laaj mbooloo mu takku mu àndandoo di yëkkateendoo di tegoondoo di dégloonte di toppante bañ a déglu kenn bañ a topp kenn ku dul képp koo xam ne yaa ngi ci projet bi di ko sàmm ñuy dégloonte bañ a déglu nag ruubekat yi nga xam ne ñoom démb ñoo fi nekkoon di aar ak a gañ ñi nga xam ne ñoom tey ñoom la ñu ci suuf sànni ci àll ba sàcc yi fi nekkoon démb am na seen i biir ñoo xam na ñu ngi ci suñu biir ruube ñu suñu taalee laaj ñu ñëw di ruube di fenaka di bind yu kenn xamul bu leen leen tontu bu leen tudd seen i tur ignoré leen ndax ñoom lu yàqu ci réew mi ñoo ko yàq léegi nag xeex nañoo ñun ba ñu foqati réew mi ci ñoom ñu dugg ci suñu biir di ruube ak di yàq xel yi bu leen leen déglu ubbi nañ seeni i ñi ñu ngi garder seen i compte ñëw di ruube bu leen leen déglu bu leen leen tontu bu leen yéeg ci seen benn live wala yéen ngeen def live di leen tudd amuñu jot a tudd kenn dañoo am ñun lu ñu war a liggéey lu baree baree bari soxla mbooloo mu baree bari te lii tax ñu war a àndandoo ñun mooy réew mi incha ku mel ne man man projet bi ma nekk léegi fi mu toll nii wax naa leen ko depuis un mois leen lii sama projet mooy fexe ba patriote yi yor réew mi santa bëggatuma réew mi tegu ci ay loxo ay sàcc man ci loolu laay liggéey fi mu toll nii nu ñuy def

ben 100 ans minimum parce que mako waxe minimum 100 ans ci ay patriote parce que Réunion mi ko 500 ans 200 ans d'esclavage 200 ans de colonisation 100 ans de néocolonisation presque il faut que ñu un régime politique bu patriote boo xam ne day dox ci souveraineté minimum cent ans pour samp ken yi samp kenn yi raxas xel yi njaam geeg colonisation bi nekk ci bopp nit ñi ñu raxas ko ba mu set te loolu mënoo ko raxas ci benn manda ñaari mandat ñetti mandat ñeenti manda parce que dañ cee nandal dañ cee nandal askan wi dañ leen cee nampal ba ñu ba ñu ba ñu fer ci dafa nekk ci seen bopp yi dañoo am ay complexe subordination dafa laaj travail psychologique bu profond pour raxas xel yi dugal ci disque bu bees bu ñu déglu koo xam ne day ruube ak koo xam ne yàqu ko tax a jóg ak ñoo xam ne bëgguñu Sénégal ci seen bopp la ñu nekk ñoom ñëpp nañ leen xàmme ràññee leen kon ñi ma bëgg a waxal mooy ñenn ñi nga xam ne ay sénégalais lañ nekk ci réew mi yàkkamti bëgg fayante bëgg justice bëgg fayante ak ñi nga xam ne ñoo leen tooñ démb ak barki démb ñu lool ngir bëgg fayante ma comprendre leen xam lu tax ñu yàkkamti xam li ñu daj xam bi xam injustice ni mu méttee ba tax ñu bëgg a fayantu am nañ ci droit te maa ngi ñoom a ànd ñi bëgg a fayantu d'accord naa ak yéen man maa ngi yéen a ànd man baalewu ma man fayantu laa gëm man ba ñi ñi fi nekkoon démb di buuma ko buumi kenn du leen baal man baaluma leen bokk ma ci ñi leen di baal waaye nag yàkkamti wu ko parax parax wu ma ko parce que xam naa ni état di doxee ñu ci bari bëgg nañu mais xamuñu état état nag dafa am nu muy doxee doxalinu boppam woo xam ne du Ousmane Sonko moo koy soppi du Diomaye moo koy soppi dafa am loo xam ne état de droit la état de droit nag dafa am ay charte yu ko ŋànk am nu muy doxee kon loolu Ousmane mënu koo jalgati Bassirou mënu koo jalgati lu ngeen yàkkamti yàkkamti il faut que ñu teg mbiri ci temps teg ko ci yoon teg ko ci ay charte yoo xam ne bu ëllëgee ken du ñu mën a jam ndax bu ñu juumee ba def li fi ñi fi nekkoon daan def mooy jaay doole def lu ma neex maa doole gi nu ma neex laa def ku ma bëgg laay dal ci kawam ku ma bëgg a tëj tëj ku ma bëgg a tijji ji loolu bu ñu ko defee ñun ak ñi fi jóge ñoo yem te du demee noonu loolu bu amoon dama koy xeex man daa ñu fayante mënta ñàkk waaye fayante ci dëgg fayonte ci droit fayonte ci jub fayonte ci fayonte boo xam ne bu amee bu ëllëgee kenn du ne lii waroo ko woon def ndax da nga teg ci charte yi réew mi waaye indi ay firnde yu tax nga war a topp diw ak diw ak diw ak diw ku ci ti daw ak foo mënta nekk ci àdduna bi daañu la jëli kon maa ngi leen di woo yéen ñii nga xam ne man ak yéen ñoo àndoon di xeex ñu teg ñu lu diis lu metti yéen ñëpp kenn ku ci nekk ngeen soxla justice te muy lu dëgg te muy lu war a am ndax loolu moo taxoon ñuy xeex maag yéen ñoo ànd ci loolu loolu incha allah rabbi dana am bu amul daañ ko xeex pour mu am waaye nag du parax parax du yàkkamti du ci jaay doole lañ koy defee dañ koy teg ci yoon ndax moom lañ mas di xeex nit nag lépp lu muy woote da koy wuyoo man la ma gëmoon démb ci ay principe moom laa gëm tey bëgguma injustice bëgguma jaay doole sama noon bi gën a bon di ma sëf dooleem ci jaay doole bu ma demee ba jekk ko du ma ko sëf doole ci jaay doole dama koy sëf doole ci justice ci yoon laa ko koy tegee ndax man loolu laa gëm loolu mooy sama loolu mooy sama valeur kon buñu ñu jaawale bu jum. juum su ngeen ko mënee tapote ngeen tapote ko mu yaatu ngeen leen jëf ku ci mën a jàppale ngeen yaatal ko mu yaatu kon benn pàcc bi ci ñoom ñii laa ko jëmale mu yéen ñi beneen pàcc bi maa ngi ko jëmale ci ñi nga xam ne ñooy yi les panafricains ñi nga xam ñu ci réseau yi di wax Euh, muy ñoo xam ne dañoo bëgg Afrique bëgg Afrique nekk am réew benn réew benn président mu nekk lu noble loo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ ko def nañ ko ci suñu préambule de la constitution mu nekk ci suñu biir constitution yi muy bëgg-bëgg boo xam ne ñun ñi di xam ne ñoo bokk bii continent di continent africain ñoo ko mébét bëgg ko waaye loolu nag bu ko nit ñi jaawale jàpp ne lu nekk la lu am la loo xam ne dafa war a ñëw nekk ci kaw askan wi di imposer askan wi loo xam ne du jàll ñu bari interpellé nañ ma dama woy panafricanis les panafricanistes yi ñu ngi wax li Sonko lii Diomaye lii tout ça ma ne leen si yi ñu lu ñuy wax Ousmane Sonko amuñu lu ñuy wax Diomaye Faye en tout cas man loolu lay conseillé le président Bassirou Diomaye Faye di ko conseillé le président Ousmane Sonko li ma leen di ñaan di ko conseillé mooy nañu def très attention ci yenn pression ak yenn wax yoo xam ne panafricanistes yi ñu ngi koy yëkkati di ko jëmale ci gestion interne bi nga xam askanu Sénégal la ñeel ndax kenn doxagu fi ci àdduna bi ba gis ab africain bu yor passeport africain. كان دوخو غو في سي ادنا بي با غيس اب افريكان بو خا دا فا ام كارت الكتر افريكان كان دوخو غو في سي ادنا بي با غيس بريزيدان لا ريبوبليك بو نيسي لو بريزيدان لا ريبوبليك دي لافريك كون افريك امول لو ني جيما امال لا واي امول مير نك بوكاي جيما امال دا فا ام نوكاي امالي واي دوكو فورس نيت ني افريك امول اكزيستي وول ولا بوك بو امي توبا بي يخو كراي افريك بي في نك mooy Afrique boo xam ne tubaab yi ñoo ko coloniser dagg-daggee ko génn ci ay réew dagg frontières yi coloniser leen exploiter leen ba noppi nag indépendance ba noppi def néocolonialisme Afrique googu moo fi am Afrique gi ñu bëgg amul Afrique gi fi am mooy Afrique yi tubaab yi teg ñoo créé OUA ñoo créé CEDEAO ñoo créé BEAC ñoo créé banque central ñoo créé lépp ba ci Afrique sud gi tubaab yee fa nekkoon lafa fa baax yëpp tubaab yaa ko fa def South Africa tubaab yaa fa nekkoon. donte système ségrégationniste la ñu amoon apartheid waaye ñoo ko soqalee ba mu am lii fa amakus néew tubaab bi ñoo fa nekk noot ñu kon Afrique gi ñu bëgg amagul donte lu ñu war a amal la waaye ni ñu ko war a amalee nag dafa war a am ay charte dafa wara am yoon dafa war a am nu fu muy tegu waaye doo ko teg ci yuuxu nekk ci réseau sociaux yi di fëgg dënn panafricaniste la bëgg buzz yor sa chaîne YouTube di yuuxu di wax ngir xaalis boo ci bëgg patati patata ça c'est du populisme ça ne passera pas man Afrique googu ça ne m'intéresse pas Afrique gi ma intéressé Afrique gi nga ñi ci wax dañuy am xam-xam xam ci li ñi wax lan la Afrique ne bu taxaw Afrique Afrique panafrica feug deung amo science amo xam-xam yow Afrique gi nga bëgg ñu tabax ko xamoo ñu koy économiquement xamoo juridiquement financièrement historiquement anthropologiquement commercialement sur le plan des libertés mais du du da Afrique Afrique Afrique continent boo beugé tabax dafa am yoon yu ñu koy tabaxé mënoo toog ci réseaux sociaux yi di ŋàppiku rek do africain wala boog doo sénégalais do do do do, doo voté nekk ab dëkk dëkk ci benen dëkk bëgg imposer sa point de vue li xew Sénégal man duma ko nangu. amul maa leen gën a ay panafricain ñoom ñëpp kenn gënu ma nek, nekk panafricain man nak mais nak man panafricain bu conscient la panafricain bu am conscience panafricain panafricains dox ci xam-xam panafricain logique organisation ak méthode ak science mais duma panafricain populiste nek réseau yi di buzz ngir bëgg chaîne bu ngir YouTube ngir je ne suis pas de ce genre de panafricain il faut que ça arrête ça ne passera pas donc ma leni bu réseaux sociaux yi chaîne YouTube du ut xaalis wala di buzz wala di ut dina bëgg a nekk star woy Afrique lii woy Diomaye waru def lii woy Ousmane Sonko la woy franc il faut que ça arrête amuñu leçon yu ñu jël ci kenn ñun sénégalais yi rawatina patriotes yi amuñu benn leçon de panafricanisme bu ñuy jël ci qui que ce soit amul benn leçon ci wàllu français fa ci wàllu intégration régionale sous-régionale africaine continentale interterritoriale on n'a pas de leçon à tirer de qui que ce soit on sait qui nous sommes nous savons ce que nous devons faire et nous allons y arriver s'il plaît à Dieu on n'a pas le complexe de qui que ce soit et personne je le dis bien personne ne nous fera des pressions nous nous fait pression que ce soit en interne au niveau du Sénégal comme à l'externe pour que nous dem vers cette anarchie c'est des anarchistes ce ne sont pas des panafricanistes ce sont des anarchistes et ces gens-là il faut les combattre il faut combattre toute forme d'anarchie. C'est avec l'intelligence, l'organisation, la méthode que nous allons construire cette Afrique que nous voulons, dans le temps et dans l'espace. on ne veut pas une Afrique anarchique on veut une Afrique cohérente une Afrique où xam ne cohérence cohérence d'idées, cohérence de projet, cohérence culturelle, cohérence géographique, cohérence économique, cohérence commerciale, cohérence financière, cohérence de défense, une armée de défense collective, une cohérence dans un consensus, dans une, voilà, une Afrique suivant des critères. On va définir des critères. Gambie, Sénégal, Mauritanie, Mali, si nous voulons, du nekk ci réseau yi di yuux rek parce que ñoo bokk der bu ñuul ñoo bokk benn continent loolu taxul ñu ànd bokk der bu ñuul taxul ngeen bokk culture bokk der bu ñuul taxul ngeen bokk euh, Afrique Wow, mais wax ne Afrique nous ci télé du Afrique Afrique oui, oui, il faut arrêter ce chauvinisme africain qui consiste à parler dans l'émotion parce que nous avons été colonisés, oui, parce que nous avons été esclavagisés, oui, parce que nous avons subi jusque-là le néocolonialisme, oui, tout ça c'est vrai. li ñuy xeex yëpp ne tubaab ñu ko teg lu dëggu la loolu lépp mais naka réglé naka lañuy fexé ba lolu dak lolu xel la laaj dafa laaj xam-xam dafa laaj xel dafa laaj tey dafa laaj dal du affaireu u pëyi pëyi pëyi pëyi du affaireu dof affaireu nit la ak xam-xam waye tok fi ga tok tal sa télé di wax wala sa YouTube wala fu yo xam wala nga nek bitim rew di mbell mbell yakarna man nga tek pression président Bassirou Diomaye fay wala man nga tek pression le premier ministre Ousmane Sonko ci ay question français fa ay question eh, mais il faut arrêter il faut que ça cesse il faut arrêter ça ne passera pas ça ne passera pas di wax ci waxi que maa ngi dégg ñu yëkkati encore sujet français. CFA ñu ngi wax ay AES le Sénégal rejoindre AES pourquoi le Sénégal va rejoindre Le Sénégal e pourquoi mu rejoindre Sénégal wala dem dugg ci euh, AES lu Hein Sénégal wala dem e pourquoi toog di wax ci émotion di wax ci ak lan moo tax ñoom ñu créé AES ak yan condition nga ci war a duggee lu fa Sénégal di wuti ñu koy wax moytu leen di déglu ñuy waxtu duñu wax ci xam-xam moytu leen di déglu ci populiste di déglu ci koo xam ne ci ay émotion lay wax di déglu ci koo xam ne li muy wax amu ci xam-xam waaye dafa bëgg buzz moytu leen ñooñu yéen lay waxal yéen senegal yi waxuma ak africain de yéen sénégalais yi lay waxal moytu leen di topp ñoo xam ne amuñu xam ci dara réseaux sociaux yi moo tax ñuy wax bu dul woon réseaux sociaux yi bala ñoo wax dañuy dem ca baar ba mandi naan ba mandi soog a mën a ubbi seen gémmiñ parce que sañu ñoo wax ci lucidité pour ñu mën a wax il faut que ñu mandi waaye réseaux sociaux yi ñëw ku nekk di wax moytu leen ñooñu bu leen leen déglu parce que duñu wax ci xam-xam AES lan moo ko créé li créé AES mooy le Niger le Mali le Burkina Faso ñoo taxawal AES lu tax boole wuñ ci Guinée lu tax boole wuñ ci Guinée Guinée Conakry lu tax bu ndax bokkul AES man mii di wax ak yéen am na ñu may déglu bokk naa ci njëkk a conseiller Mali Burkina Niger ne leen nañu am benn force armées intégrées.

li may wax nag ñi xam ñoom daañu xam li may wax waaye ku xamul mënoo dégg li may wax parce que man ci xam-xam lay wax. def naa sax su ma jubul wax naa ko fi ci live ñi nga xam ne ñu ngi may topp dëgg dëgg dëgg am na jamono ma wax ko ci live live naa wax ci mais yow ma ci live dama ci ut ay contact ba Mali ba Burkina wax ci ak ñoo xam ne ñu ngi ci régime bi ñu jege ñooñu ba wax leen ko moo tax bi mu amee ma kontaan ci donc contre ma AES mais xamu une diplomatie nu muy doxee xamu relations internationales je une géopolitique géostratégie xamu la tactique Il xamu a ci émotion ngeen di lu ci nekk dafa am donc contre l'AS, AS, c'est une forme de réponse par rapport à une façon de faire au niveau de la CEDEAO qui ne correspondait pas à certaines logiques des pays comme le Mali le Burkina et le Niger donc nous, avons ñu pour une souveraineté dama ci and ak ñom dañ ko bëggono def au sein de la CEDEAO CEDEAO ne leen du fi am ñu fi fipp taxaw taxawal seen organisation ànd pour am doole bu leen kenn xoqatal bu kenn dal ci seen kaw ils ont parfaitement raison mais lu tax dugal nañ ci Guinée est-ce que ñiy wax posé wu nañ la question pourquoi la Guinée bi def coup d'état comme ñom bokku ci seen mbotay AS lu tax Guinée bokku ci ngeen bëgg cee boole Sénégal ñoom ñii di wax ku leen waxati way wax wéy AES tout ça ne ko hee lu tax Guinée bokkul ci AES laaj ko nga ba xam am na ki tontu amu ki tontu parce que xamu ko jamono bii du jamonoy jàbbatu du jamonoy waxantu du jamonoy làmbatu jamonoy xam-xam la ku amul xam-xam noppil tey déglu sa big ak sa di bind te bañ a wax du jamonoy wax loo xamul. ndax Guinée Conakry def coup d'état bokkul ci état as ndax bokku ci te ba koy wax man bolé woon naa ci Guinée mais booba c'était au départ biñu soga fipu mais dama dem ba ci bir ma gis na Guinée waru ci mën a bokk ndax dafa am ay réticence dafa am ay questions yu ma régler ak wa Guinée d'abord le général il est de maintenant général Doumbouya dafa am ay gage dafa am ay garanti yum mu war a joxe te joxeegu ko Guinée dafa am ay garanti yu mu war a joxe te joxeegu ko moo tax mënu gën a bokk ci état AES am ay gage yu des ci taxawaayam ci posture am ci ay information yu ñu am Guinée Conakry le général Doumbouya mais li mu def Guinée moom lañ def Mali def ko Niger def ko def ko euh, Burkina coup d'état la coup d'état ñoom ñëpp coup d'état lu tax ñoom ñett ñee ñu ànd boole wuñ ci Guinée muy ñeent te pourtant li ñu sanctionné ñee moom la Guinée def coup d'état coup d'état loolu ab question la boo xam dama leen di bàyyi ngeen gëstu ji ko ngeen pour ngeen mën cee tontu ñaareel bi mooy Guinée bi def coup d'état mënta ànd ak ñi def coup d'état Sénégal defuñu coup d'état élection lañ def fal président ba àdduna bi yëpp na gong ngeen na ki def élection ba falu na dem ànd ak ñi def coup d'état <laughs> yéen fan ngeen jàngee. ñiy wax loolu fu ñu jàngee lan la ñu jàng lu ñu xam ki nga xam ne moom am amul démocratie ci réewam pour am souveraineté boppam mu jàpp ne pour am souveraineté moom boppam xeex coup d'état mooy tax mu am ko ndax président ya nekkoon ca ko bopp réew yi ay marionnette France la ñu donc ñii élection du leen fi jëlee mais coup d'état moo leen fi jëlee ñu coup d'état leen nangu réew ma wax nañ dëgg man ànduma ci coup d'état waaye nag moom sa bopp moom sa réew moom sa koom-koom su taxawee man d'accord na ci coup d'état pour réew mom moom moom am naa ci mais buñ ñu ko mënee régler ci élection mo gën buñ ñu fexé ba mom sa bop mom sa réew mom sa koom-koom ci ay carte ci élection bu bu mënee nek mo gën coup d'état waye bu mënta nek nak dañuy coup d'état ñun Sénégal def nañ ko sans coup d'état mais buñ ko mënul won def bu Macky Sall bëggoon a duppal ñu carte dañ koy coup d'état parce que élection lañu gëm. yu jaar yoon yu transparent bu mënta nekk nga bokk sàcc dañ lay coup d'état parce que li ñuy xeex mooy moom suñu bopp moom suñu réew. kon mënoo jël ay xar ak i bëy boole leen xar day ànd xar bëy day ànd ak bëy yéen ñu taxaw naan ay AES yéen xam ngeen luy AES xam ngeen yéen condition fi dugg ku leen na sax yéen Sénégal su bëggoon dugg AES dañ ko bàyyi bu dugg ku leen na sax yéen Mali Niger Burkina bëgg nañ senegal dugg AES ku ko wax. Toi qui seen live yi di mbéppi mbéppi mbéppi xamu quels sont les enjeux taxaw di wax lu la neex c'est trop facile da ngeen foog na AES ku jóg dugg ci mais yeen xamu leen état yi doxee xamu leen géopolitique xamu géostratégie xamu les enjeux de la sous-région xamu leen ci dara tok di wax rek kan mo len tay Sénégal bu jógoon ne damaa bëgg bok bokk dañ ko bàyyi mu bok duñu ko bàyyi bok Sénégal mënta dugg AES Senegal mun tuddugu AES parce que AES pour nga bokk fa dafa am ay critères da nga ñëw rek fëgg ji bindu ñu la kaay tok bu doon loolu wa wa bu doon loolu dumb yaa du dugg ko nak Conakry ñu parce que du ngeen dox ci xel ñu wax la wax ñi wax li duñ dox ci xel est ce que nit ñi bu ñuy day am lu leen di boole pour nga and ak nit day am lu la boole ak moom da nga ñëw rek fëgg mel na rido may ga ñëw rek dugg déedéet dafa am li ñu tuddee les critères de convergence dafa am ay critères ay conditions yoo xam ne da ngeen koy bokkale moo leen di boole Sénégal lan moo ko boole tey ak lii nga xam ne mooy ñetti réew yi nga xam ne ñoo taxawal AES lan la ñu bokk ak Sénégal ba senegal wala tàbbi ànd ak ñoom ci biir lenn képp lañ bokk lenn lañu bokk bëgg ñoom mooy moom seen bopp souveraineté Sénégal bëgg na souveraineté Mali bëgg ko Burkina bëgg ko Niger bëgg ko loolu moom bokkale benn critère bokk mais nag naka la ba moom suñu ni Sénégal moom nous ba bëgg moom bokkul ak Mali Niger ak Burkina fi bëgg a jaar pour moom seen dañ dañuy coup d'état ñun ñu dañuy élection ñun ñu fal un président souverainiste mu fal premier ministre souverainiste ñom ñu def coup d'état ñom nangu réew ma fokkati ko pour taxawal sen souveraineté moyens yi ñuy utiliser outils yi moyens yi bokkul ah, on n'a pas les mêmes méthodes et les mêmes moyens booloo mooy doole dagg deug la waye bool ban bolo moy doole ban mbolo man da nga yakana mbolo mbooloo yëpp doole la du mbolo yëpp doole de am na mbooloo yoo faiblesse la loolu waxi olof ju yàqu la mbolo mooy doole dafa am ay conditions mbooloo mooy doole bu fe da a yaakaar ne mbooloo yëpp am na mbooloo yoo xam ne du doolo mbooloo moo xam ne déggoowuñu nasoowuñu mbooloo moo xam ne bokkuñu ay bëgg-bëgg mbooloo moo xam ne bañu koy nas ànduñu ci bokk ay bëgg-bëgg mbooloo mi am doole mooy mbooloo mi bokk ay bëgg-bëgg bokk ay jëmtuwaay waaye mbooloo moo xam ne da nga ko dagale ci force boole woo ko ci xel tegoo ko ci bokk ay bëgg-bëgg bokk jumluwaay mbooloo moomu xuloo xeex mbooloo moomu day tas du doole loolu wax ju yàqu la mbooloo mi am doole mooy mbooloo mi bokk bëgg-bëgg bokk yéene àndandoo ngir ba ñu taxawee toog na yow ak man ak yow ak yow ñun ñii kat suñu bëgg-bëgg lii la nii lañ ci jëmee nii lañ ko defee loolu lañ tuddee les critères de convergence ce sont les il faut définir les critères de convergence mais mbooloo moo xam ne yéen bokku leen li ngeen bokku leen dundin lekk bi ngeen di lekk bokkuñu ñun ak Maliens yeeg Guinéens yeeg Mauritaniens bokkuñu ay lekk bokkuñu ni ñuy lekkee bokkuñu ay aada bokkuñu ay cosaan bokkuñu géographie lu bari bokkuñu ko ñoom ay la lañu waaye ay africain yu différent lañu duñu benn Afrique du benn bopp du benn xalaat du benn culture ay culture yu jeex la ay làkk yu jeex la façon gu lekk la façon gu dëkk kay ku nekk sa culture ngeen nañu àndoon parce que nekk mbooloo nu ngeen nekkee mbooloo naka ngeen nekkee benn mbooloo lu ngeen bokk lan ngeen bokk ci culture ci aada cosaan ak ci gisin lan ngeen bokk wax leen loolu lañu war a njëkk a teg ci ko taaba ji lu tax ñu war a ànd ak maliens ak burkina yi ànd ak nigériens yi loolu du nekk lu ñuy wax ci du jóge ci xol ci xel lay jóge lan la ñu bokkaleeg ñii ak lan la ñu wuutele ak ñii ci fànn yëpp li ñu ñu teg ko ci ko taabal ji li ñu wuute ak ñoom ñu ne lii ñu àndandoo ci ngir ñu bokkale ko ndax mbokk googu mooy tax ñu mën a ànd mais bu ñu bokkalewul aada bokkalewuñ ko saat bokkalewuñ dara mais naka la ñuy àndee nañu bàyyi di wax ci pas-pas ak yëg-yëg ak pëy yi pëy duñu wax ci xam-xam di wax ci l'africain du ñu leen màgg mu moo tax tubaab bi fu ñu wax ñu ne africain ay gone lañu duñu màgg parce que ci ay yëg-yëg la ñuy wax ci ay bëgg-bëgg bëgg-bëgg doyul da nga koy ci xam-xam pour boo bëggee tubaab bi respecté la li gën jafe ci àdduna bi mooy tabax Afrique wallahi maa ngi leen koy wax naar yi mën nañoo ànd tubaab bi ànd nañu àdduna bi yëpp mën nga leen a boole li gën a jafe ci àdduna bi mooy boole africain yi parce que Afrique dafa yaatu Afrique dafa nek une hétérogénéité. Afrique du loo xam ben bop la ben melokaan la ben culture la ben aada la ben làkk la ben ni ngi dundee Afrique moy continent bi gëna compliqué ci monde bi parce que c'est le continent mère Afrique mo jur ñëpp Afrique fa la ñëpp joggé. Afrique dafa Afrique yombul attention bàyyi len di dox ci ay émotions bàyyi len di déglu les populistes toog ci réseau yi di mbépp mbépp mbépp kooki ne sëcc li muy wax xamul ci dara xamul lu ñuy fexee ba Afrique nekk benn da ngay xëy taxaw di taf yëngal naan da ngay taxawal Afrique noo koy taxawale noo koy taxawale Sénégalais yi nee na ñee ay ñag lañu ñee ne Sénégalais yi xaw ma kenn ku nekk su kii waxee kee ngay lekk eh, golo kii di lekk mbott kii di lekk gunóor kii di lekk wànq kii di wax wolof kii di lakk lingala kii di lakk lee li nekk ci Afrique ci ay divergence

Europe boo nee Europe tey am nañu benn culture européenne donte wute nañu mais fexe nañ ba li nga xam ne mënut a ñàkk mënut a ñàkk ñu bokk ko États-Unis naka lañ ko tabaxee te dëkk Europe ak États-Unis yëpp Afrique moo ko gën a compliqué ngeen foog ne dañuy xëy rek toog rek comme ça rek xëcc ci benn kurus wala tëfli ñaan Afrique nekk benn ne Afrique mënaguñoo ànd ñu ngi reyante seen biir dama xool Rwanda ak RDC intérêt économique yi donc dafa jéggi daye RDC xool ni mu toll République démocratique du Congo. moi ëpp France ëpp RDC mille fois ëpp astafurla Rwanda Rwanda ngay dugg ca territoire am jël ca cobalt baak richesse yi pour mën développer son pays Rwanda c'est un tout petit pays nga xam ne Rwanda ak RDC nous ñëpp tey jii bu ñu nekkoon ay nit yu mat yi ñu mat Gabon Cameroun Afrique centrale gépp war nañoo mën a Congo bokk na ci réew yi ëpp richesse ci àdduna bi le pays le plus pauvre Congo képp laa la wax pour nga unifier ko def ko mu nekk benn bopp congolais yi zairois yi laay wax Congo Zaïre képp continent la pour nga def ko benn pays bu homogène soqali ko la fa nekk ci ay richesse ñoom ci seen biir dong mënuñoo déggoo ña nga reyante waxuma Afrique de Congo dong ña nga reyante c'est un pays continent toutes les richesses mënuñoo ànd Guinée pareil ñu am yu ñu war a lijjanti en li lijjanti wuñu ko ngeen di dooj di waare naan ay Afrique ki ay français faa ki ay basuxul yeeg bas il faut arrêter man Afrique yi ma bëgg mooy Afrique yoo xam ne Sénégal day tabax am réewam Mali jéem a tabax am réewam Congo tabax am réewam Kenya tabax am réewam Éthiopie tabax am réewam kenn ku ci nekk tabax sam réew ba àgg ci benn dayoo boo xam ne dana la mën a tax ñu daje bu ku nekk àggee ci yenn niveau de convergence du point de vue démocratie du point de vue culture du point de vue éducation du point de vue développement économique et social du point de vue infrastructurel fexe ba wàññi pauvreté dans les pays africains Il ba a mu aw am niveau de développement yi nga c'est le niveau de développement minimum am ay critères de convergence sur nos politiques publiques de développement en matière économique financière commerciale juridique droit de l'homme état de droit justice démocratie pour que muy am alternance démocratiquement ñu am les standards minima suñu ko amee nag na nañoo jéem a dajaloo nag pour ne léegi dañuy dem ensemble parce que lii ak lii ak lii daanaka ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ñun ñëpp am nañ ko comme am nañu lii ak lii ak lii mën nañoo mën a ànd ànd nawle wala fa ko wax lan mooy ànd nawle ànd nawle mooy da ngeen di tolloo doole da ngeen di bokk gisin yow li ma am da nga koy am kii am ko nga xam ne kenn du féete sa morom kaw su boobaa ngeen soog a mën a ànd loolu mooy ànd nawle mais di jaxase dans un populisme à deux balles réseau yi di mbell mbell goudi ak bëccëg li ngay wax ko ci xam-xam c'est dangereux d'induire induire les gens en erreur yakar nga man nga influencer les politiques publiques internes de chaque État non c'est des rêveurs toog ci télé yi panafrique feug oui ils sont dans leur monde utopique c'est des rêveurs c'est des enfants ils n'ont pas grandi nañ dem uti xam-xam pour ñëw taxaw wax naka la ñuy tabaxee Afrique peu ñoom ñu koy wax naan Afrique Afrique amu ci kenn ku la mën wax ni ñu koy tabaxee doo ci déglu kenn ba wax la voilà le chemin nii la ñu koy tabaxee amu ci kenn ku ci am xam-xam dañuy mbepp mbepp di wax rek. ñuy wax nag ci franc CFA bi lu ñuy wax ci fa CFA franc CFA ñu ne wuy Bassirou Diomaye Faye nee na bu jëlee réew mi day génn franc fa génn ñu franc CFA de ñu franc CFA. wala bok option bu ñëk bi du génn français CFA bañ ko fi waxee ci campagne bi coow bari def naa ci live daal même attention Bassirou c'est vrai loolu la communiqué mais communication boobu erreur la Ousmane Sonko dellu na ci bi ñu ñëwee toog ñoom ñaar génn kaso toog seen premier sortie Ousmane nee na attention 2019 programme bi nga xam ne moom la ñu war a reconduire en 2024 mooy que option première bi mooy bëgg-bëgg bu njëkk bi mébét bu njëkk bi mooy fexe ba français CFA bi nekk suñu monnaie français CFA ñun. ñun ñi nga xam ne ñoo ko seq mu nekk suñu biir bopp ndax dafa am ñu ci rax dafa am réewum tubaab France da cee dugal loxoom di buuma ko bummi loolu lañ bëgg mu dakk dañoo bëgg monnaie bi nekk suñu monnaie bopp ñun ñu ko bokk parce que yéen xamu leen ne franc ni ki France dugal loxoom ak di buuma ko bummi moo ci moo ci li ñuul ci coow mi mais la communauté du franc CFA est une excellente communauté yéen ñi bëgg naan dañuy tabax Afrique bokk na ki tabax Afrique nga tabax ay ay ay ay ay communauté sectorielle sur le plan de la monnaie nous avons une convergence sur le plan commercial nous avons ce qu'on appelle euh, euh, l'IMOA. sur le plan donc de de qu'on appelle euh, la convergence du point de vue donc juridique et réglementaire nous avons OWADA tu vois sur le plan donc de la libre circulation des personnes et eh bien la CDAO. organisme baax mais li koy France dafa ci le ci des a mais mais c'est extraordinaire

OWADA baax na Union africaine baax na yëpp a baax BCEAO baax na xam nga lu baaxul France bi nekk ci suñu biir dañu ruube fu la jooju lañu am seppi ko sànni ci àll ba ne ko sa dëkk nga li gën say mën ak say say mbiri bopp France ci suñu organisation yi mais c'est formidable ñu ne wéy nañu e ñu CEDEAO France la ñuy seppi ki nga xam ne moo tax ngeen bañ CEDEAO kooku la ñuy seppi loxoom sànni ci àll ba Ousmane Sonko lii la wax. France CFA bi nga naan bëggu ko France CFA monnaie bu baax la dafa am ay ajustement yu ñu ci war a def dafa war a nekk dafa am ay changement yu ñu ci war a indi bi ci njëkk mooy génne France ci suñu France CFA recouvrir suñu France CFA moomal ko suñu bopp am suñu politique économique financière commerciale et monétaire bu bees tàq tàq tàq boo xam ne ci biir zone France CFA bi lañ ko defee zone UEMOA bi sans la France monnaie bi moom boppam.

mënuñoo àndandoo ci franc CFA bi moom ko suñu bopp di am suñu politique monétaire yoo xam ne ñoo koy définiral suñu bopp di ko def di ko teg di ko doxalal suñu bopp sans la France génne loxo France ca sànni ko ca àll ba ñu am des banques centrales yoo xam ne dañuy nekk des banques centrales actrices de nos politiques publiques de développement économique et social qui passe par la création des richesses et la création des emplois. Parce que le rôle des banques centrales, c'est de promouvoir les investissements qui créent des emplois ce n'est pas le cas au niveau de la BCAO actuellement, parce que c'est la France qui a, on aura des veto dessus. Nous sommes en France, ça ne côté pas. Donc, première option, Ousmane Sonko, Bassirou moi, nous redresser le franc CFA redresser wa redresser la CEDEAO redresser redresser ba ñun pays africains ñoko mass di bokk li ci ci bi suñu biir France di ko ñu séppi ko ci ba ba ñun à 100 di orienter suñu ay politique économique monétaire dans une optique de développement endogène inclusif c'est ça la vérité mais CEDEAO le li muy actuellement surtout France m'a influencé de manière à ce que nos économies soient des économies extraverties des économies qui ne sont pas entre les mains des peuples mais des économies qui sont entre les mains des entreprises françaises et de l'intérêt français c'est ça qu'il faut arrêter bu leen jaawale ah il faut pas jeter le bébé et son eau de et l'eau du bain suñu suuf seen yaawoo suñu il si yëpp baax yëpp baax seulement dañoo am ay président yu baaxul bu leen le président yu baaxul yi marionnettes yi liggéeyal France ak cadre bi cadre yi baax na les cadres sont bons CEDEAO IMOA OWADA BCEAO Union africaine BEAC cadre yi c'est bon il faut les renforcer, il faut les pérenniser parce que ci cadre yoy ci nga vers l'unité africaine tu ne peux pas mënoo xey rek ne Afrique Afrique dafa am ay étapes ay yoon. les organisations sous-régionales yi faut nga gëna toggé toggee sa dem ci Afrique foofu nga koy l'Afrique. Il bari critères de convergence yi nga koy tambalé. c'est important c'est ay étapes la ba mu dok, ba mokk foofu lu mu ngay dem Union africaine wala unité africaine. suñu ko deful baa ngi def musiba bu rëy kon cadre yi baax na dafa laaj ay réforme ay jubbanti ak joyanti ñi ci bokkul ñu génne leen ci li ci baaxul ñu defaraat ko mais loolu munta nekk ndax France moo toog ci biir ne kenn du ko defar ndax ni mu mel moom France da koo arrangé ndax ni mu mel moo tax moom France mu jël suñu koom-koom bi di ko yóbbu France di ko dundee loolu dafa war a dakk dafa war a dakk kon lii laa bëgg ngeen dégg ko projet bi li mu wax mooy dañuy négocier bañ ku bokkul ci suñu monnaie nga génn ci ñi ci bokk ñu toog pencoo ko waxtaane ko xool li nga xam ne dugal nañ ko ci te baaxul ci suñu koom-koom day tax ñu dool day tax duñu avancer ñu jubbanti ko di nasaka not ci ñun ñi bokk monnaie bi dootuñu bàyyi kenn mu dugg ci liñ a soppi ñu soppi ko ci bu dee tur bi ñu soppi ko bu dee doxalin yi ñu soppi ko banque centrale bi gouvernance bi yëpp ñu soppi ko ba nga xam ne day nekk au service du développement de nos

Si ko par des instruments ou des leviers d'ajustement structurels qui nous permettent aujourd'hui d'orienter nos économies vers la compétitivité qui crée des emplois, si on ne peut pas avoir cette marge, parce que la France dit net, eh bien on quitte la zone franc pour aller vers la création de notre propre monnaie on ñu en am ci mi dañuy monnaie que nous condition Quand avoir notre propre monnaie c'est une condition du projet suñu en àndandoo mbolo. moom lii moom suñu monnaie boo xam ne day suqali suñu koom-koom bu ñu ko mënta am ci biir CEDEAO bi génn France sànn ci biti dañuy dem uti suñu monnaie bopp lii la ñu wax waaye tëbuñu rek ne dañuy dem uti suñu monnaie bopp nekk ci biti nag nekk ay panafricain yooyu wala ñi nekk ci biir réew mi di pana panafricain lu mënu leen a muusa ko ba forcer nit ñi ñuy def loo xam ne teguwul ci xam-xam état nekkul ci mbedd mi état du yëfi ci xaxaan du toog ci mbedd yi taal sa di wax c'est pas ça loolu dama bëgg mu leer bu ngeen ko mënee partager tapoter ko mu yaatu bu ñu mënee tapoter mu yaatu ku mën a tapoter mu kon na nit ñi xam li attention ci lépp loo xam dafa laal organisation régionale laal mbooloo laal français, la laal laal faut faire très attention voilà des fois on a besoin de faire les choses dans l'effervescence, ben oui, il faut faire le discours en français. Je disais donc tantôt, je le dis en français, que les panafricanistes qui sont dans les réseaux sociaux et qui tentent d'imposer un point de vue sur la question du franc CFA ou la question de l'AS, vis-à-vis donc des nouvelles autorités du pays au Sénégal, ne sont pas en droit ni en science de convaincre qui que ce soit parce que le Sénégal n'est pas le Mali. La Guinée-Conakry n'est pas le Mali. D'ailleurs, l'AS, e la Guinée n'a pas intégré l'AES. Pourquoi Posez-vous la question, pourquoi la Guinée n'est pas dans l'AES Pourtant, c'est un pays qui a fait un coup d'État comme au Niger, au Burkina ou au Mali. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait un coup d'État qu'effectivement vous êtes ensemble. Le coup d'État n'est pas un critère de convergence. Il faut encore creuser et voir en profondeur quels sont les critères de convergence. Donc, les trois pays qui ont fait des coups d'État chez eux pour une souveraineté, à tout point de vue, ont les mêmes volontés que le Sénégal, à savoir avoir un pays souverain. Cette souveraineté est quelque chose qui est partagé par tous ces pays-là, le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, oui, on partage cette volonté souverainiste de nos pays. Mais est-ce que nous partageons les mêmes méthodes, les mêmes méthodologies, les mêmes outils, les mêmes moyens d'y accéder Non. Au Sénégal, c'est avec la démocratie, par les élections, que nous avons réussi à élire un président souverainiste. Au Mali, on n'a pas pu. Il a fallu faire un coup d'État, comme c'est le cas aussi au, Niger, au Burkina. En Guinée, pareil. Mais est-ce que la Guinée est dans une dynamique souverainiste avec son nouveau président, Goudoumbia je ne sais pas. En tout cas, la Guinée-Conakry n'est pas dans l'entité AES. Pourquoi C'est une question qu'il faut aller creuser. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. Il ne faut pas qu'on mélange l'Angleterre et la pomme de terre. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas être dans l'émotion, dans le chauvinisme, dans le sentimentalisme. C'est une science d'organiser des États, de les mettre ensemble ou de les dissocier. C'est pas parce qu'on est panafricain, on a envie. C'est pas une question d'envie, c'est pas une question de, de copains et de copines. Il faut qu'on arrête. La question de l'intégration africaine est une question éminemment technique, à tout point de vue. C'est une question de science, ce n'est pas une question d'émotion. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être comme des enfants, hein, des petits bambins euh, dans une école maternelle où les, gens, les enfants se disputent des jouets. Il faut arrêter. Voilà, la raison qui font qu'effectivement, des fois, l'Occident même ne nous respecte pas. À chaque fois qu'on traite les questions de monnaie et tout ça, ils nous disent ouais mais euh, c'est pas euh, pas avec les émotions parce que souvent on fait montre de d'être émotif. Souvent on est moins apte à, démontrer comment nous devons accéder à notre souveraineté techniquement sur tous les aspects économiques, finance géopolitique, militaire et tout ça, on est moins apte à le démontrer techniquement que d'être là à euh, faire des souhaits, des, des, rêves, des santé. Non, c'est pas comme ça. Le monde est une science. Il faut qu'on arrête. L'Afrique est le continent le plus compliqué au monde, le continent le plus difficile à organiser. Parce que non seulement historiquement, anthropologiquement, l'Afrique, ce n'est pas une Afrique, ce n'est pas une réalité. L'Afrique, c'est une hétérogénéité. L'Afrique, c'est la mère patrie. Donc, qui dit mère patrie dit donc plusieurs cultures, plusieurs territoires, plusieurs. L'Afrique, l'Afrique, c'est une complexité. L'Afrique n'est pas une réalité objectivement organisée, cohérente. L'Afrique, ce n'est pas une cohérence. L'Afrique, c'est la mère de tout le monde. L'Afrique, c'est la différence. L'Afrique, c'est l'école. Donc ne rêvez pas. C'est pas, ça va pas être facile, ça va prendre du temps. C'est pas, c'est pas facile. Par conséquent, il faut du temps, il faut de l'intelligence, il faut des générations organisées dans la science, dans la méthode, pour pouvoir construire cette Afrique. Ça aurait été... C'était plus facile de construire l'Europe, les États-Unis, les autres, les, les continents arabes, tout ça, c'est facile. Mais l'Afrique, c'est une hétérogénéité. L'Afrique, c'est complexe. Donc, il ne faut pas rêver. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre dans nos propres pays respectifs d'abord. Il y a des différences de culture, des différences linguistiques, des différences d'approche, des différences de plein de choses dans nos propres pays. Est-ce que nous avons réussi à les organiser, à les régler Non. Non, même pas. Nous ne sommes même pas capables de régler nos petits problèmes internes dans nos pays et nous voulons agréger tous ces petits problèmes-là pour un continent, pour créer une bombe atomique. Mais ça va exploser, ça ne passera pas. Surtout ceux qui veulent le faire dans l'émotion. Il faut définir des critères dans toute chose, il faut procéder par la science. Quand on va être ensemble, on s'assoit sur une table, on va voir qu'est-ce qui va nous réunir, toi et moi. Pourquoi on doit être ensemble Pourquoi le Sénégal doit être ensemble avec le Mali Pourquoi le Sénégal doit être ensemble avec la Guinée ou avec l'Éthiopie Pourquoi Pourquoi Pour certains, parce qu'on a la même couleur de peau. Pour d'autres, parce qu'on on est sur le même continent. Mais non, ce n'est pas des critères objectifs. Même couleur de peau, c'est pas objectif, c'est aléatoire ça. La couleur de peau, tu l'as pas choisi? Tu es né black ou blanc ou beurre ou je sais pas quoi, ce n'est pas ton choix. Tu n'as aucune maîtrise sur la couleur de ta peau, ce n'est pas un critère objectif, c'est un critère subjectif. Oui, on doit être ensemble parce que nous partageons le même continent. Mais le continent, tu ne l'as pas choisi, tu n'as pas choisi à être en Afrique, c'est subjectif. C'est le hasard qui a fait que tu es né en Afrique, tu aurais pu naître en Chine, donc le critère de couleur de peau, le critère de géographie, c'est subjectif, ce n'est pas de la science. Mais quand on s'assoit sur une table, toi et moi, on dit, écoute, on doit aller ensemble. On va dire, on va aller ensemble dans, quoi Dans quoi nous devons être ensemble On doit être ensemble pour faire du commerce, on doit être ensemble pour avoir un seul territoire, on doit être ensemble pour former une armée, on doit être ensemble, tout ça. L'AS, ils sont ensemble pourquoi l'AES, là, Mali, Niger, Burkina. Pourquoi ils sont ensemble Ils sont ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs de sécurité et de défense pour défendre leur territoire et pour dérouler leur plan d'action qui les mène vers une souveraineté. Donc eux, ils n'ont pas été ensemble parce que ce sont des Noirs. Hein. Ils n'ont pas été ensemble parce qu'ils partagent un territoire. Ils ont été ensemble parce qu'ils ont un objectif de sécurité commune. Écoute, on va être ensemble parce que nous avons les mêmes objectifs de souveraineté, mais séparés, nous sommes vulnérables. L'ennemi peut nous abattre. Donc pour nous être plus forts vis-à-vis de l'ennemi qui veut nous euh, qui qui veut nous terrasser, il nous faut intégrer nos forces de défense et de sécurité. Ça, c'est un critère objectif, c'est de la science, ça. Alors, il faut qu'on sorte de nos émotions, qu'on soit en mesure de définir ce qu'on appelle les critères de convergence, de point de vue, d'approche et de projet. Qu'on pose ça sur la table, que chacun parle en science et non euh, en émotion. Voilà pourquoi on est ensemble. Voilà ce que je gagne, voilà ce que tu gagnes, voilà ce que je perds, voilà ce que tu perds. C'est comme une entreprise. Quand on fait des investissements, on voit les avantages et les inconvénients. C'est ça la science, mais pas les émotions. Oui, on est des blagues. Mais ça vous dit, mais oui, on est des blagues, mais on n'est pas des frères et sœurs. Hein. Être, noir ne signifie pas être frère et sœur. C'est de la subjectivité. C'est comme ceux qui disent, oui, musulman, arabe. Quand tu es arabe, tu es musulman. Quand tu es musulman, tu es arabe. C'est de la subjectivité. Il y a des arabes non musulmans, il y a des musulmans non arabes. Alors tu veux dire que toi, quand tu es, quand tu es black, tu es mon frère. Mais ça, c'est quel genre de fraternité Ça vient d'où ça Une fraternité qui se, qui, qui se base sur la couleur de la peau, c'est ça la fraternité Mais ça, c'est L'émotion, ça. Donc je m'adresse à nos compatriotes euh, panafricains. Une fraternité, oui, mais pas une vraie fraternité, c'est une fraternité subjective. Je suis d'accord, mais elle n'est pas objective. Parce qu'on n'a pas la même culture. Hein. Moi, je vais au Mali, je vais en Côte d'Ivoire, je vais... mais moi, en tant que Sénégalais, je n'ai pas la même culture qu'eux. Hein. Ils le savent, je le au Congo, c'est pas la même culture. Les Congolais n'ont pas la même culture que les Sénégalais. On ne mange pas les mêmes choses, on ne voit pas On a plein de différences, énormément de différences, c'est une réalité. Et vous pensez que moi, l'Afrique que je veux construire, je vais la construire sur la base des couleurs de peau, des yeux bleus ou je ne sais pas quoi, jaunes, de, géographie Mais non, moi je suis plus intelligent que ça. Non, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me différencie du Congolais, de l'Éthiopien, du Kenya, du Sud-Africain. Et qu'est-ce que nous avons en commun Qu'est-ce que nous avons en désaccord Comment on peut donc mutualiser nos convergences, mais comment on peut travailler à mutualiser nos divergences C'est ça l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut pour être autour de ce qui nous ressemble et travailler ce qui nous différencie dans la tolérance et dans le temps, pas dans l'émotion. C'est comme ça qu'on peut construire l'Afrique que nous voulons, une Afrique solide construit sur la base donc des critères solides, des critères réels, des critères scientifiques, pas des critères d'émotion. Parce que tout ce qui se construit avec l'émotion ne peut être durable. Donc, ne soyez pas complexés. N'écoutez pas les gens qui passent leur temps à piailler, à euh, grisouiller dans les réseaux sociaux. Oui, panafricain, tout ça. Non, banne les muscles. Écoutez s'il y a de la science, prenez s'il n'y a pas de la science, tracez votre route. C'est aussi simple que ça. C'est pas du tout compliqué. Nous sommes tous des panafricains. Nous voulons tous aujourd'hui construire une Afrique unie, intégrée, cohérente, prospère, tout. C'est le rêve de tout un chacun, oui. Mais, mais, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. En tout cas, pour nous, sénégalais. En ce qui nous concerne, nous avons une claire conscience, une claire vision, une claire audience de ce que nous voulons. D'abord au plan interne, les exigences de développement que nous devons construire d'abord, tant du point de vue comportemental, du point de vue sociologique, culturel, anthropologique, économique, social, commercial, il y a un minimum de critères que nous devons réussir à construire d'abord au plan interne, au niveau du Sénégal, avant de nous lancer vers une intégration régionale encore beaucoup plus soudée qui, nous mènera plus tard vers une unité africaine. Il y a des escaliers, il y a des étapes. En tout cas, moi, à mon niveau, c'est comme ça que je conçois les choses et je me bats dans ce sens. Le projet de PASTEF n'est ni de gauche ni de droite. Il n'y a, pas un panafricanisme de gauche ou de droite. PASTEF n'est ni un parti de gauche, ni un parti de droite, ni un parti de centre. PASTEF, PASTEF est un parti politique pragmatique. C'est un parti qui ne se réclame ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni des extrêmes. C'est un parti dont la philosophie et le pragmatisme. On prend tout ce qui nous permet, nous, d'atteindre nos objectifs en termes de souveraineté, en termes de développement économique, social, endogène et inclusif. Tous les moyens sont bons pour arriver à ces idéaux et ces valeurs-là. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans une idéologie telle ou telle. Non, L'idéologie que défend un PASTEF est une idéologie pragmatique. Gauche ou droite, tout ça, c'est des conneries. Ça, gauche droite, ça veut dire quoi Gauche droite, vous l'avez où là vous Gauche droite, vous l'avez pris des pays occidentaux, ça, ce sont des idéologies que d'ailleurs vous combattez des gens, mais vous adoptez leur posture, leur idéologie, leur philosophie, gauche ou droite. C'est quoi ces histoires Le PASTEF n'est pas un parti de gauche. D'ailleurs, je me bats contre. Tous ceux qui pensent que le passif est un parti de gauche, moi je ne veux pas contre ces gens-là. Le passif n'est pas un parti de gauche. Le passif n'est pas un parti de droite. Le passif est un parti pragmatique. Ça, la vérité, c'est ça qui est dans leur statut. Donc, il ne faut pas avoir des comportements de gauche, de droite, ou de centre, ou je ne sais pas quoi là. Non. Comment on peut être ensemble En Afrique, il y des, il y a des animistes, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a plein de trucs. Déjà, arrivons déjà à régler ces questions-là, même sur le plan du culte. Il y a des gens qui se disent, nous, oui, dans, nos religions traditionnelles, il y a des gens qui croient à la religion de leurs parents, les, les religions primitives. Il y en a qui, aujourd'hui d'ailleurs, ils ne s'entendent même pas. Certains sont musulmans, d'autres se disent des kémites du point de vue religieux, parce que le kémitisme, ce n'est pas la religion. Le kémitisme, c'est une civilisation primitive. Le kémitisme, ce sont nos ancêtres. Mais aujourd'hui, il y en a qui l'ont transformé en religion la religion de nos ancêtres. Je n'ai rien contre eux, c'est leur droit. Hein. Mais déjà, si nous voulons construire l'Afrique, comment nous pouvons construire l'Afrique avec des kémites qui se disent donc euh, croyants de la religion de leurs ancêtres Comment on peut le faire avec des, des, des, blacks qui sont des catholiques, qui croient en Jésus, d'autres qui croient à, Mohamed, tout ça Déjà, vous, vous, ne vous entendez même pas déjà. Quand on vous met dans une chambre, vous vous tuez, vous vous entretuez déjà. <laughs> vous voulez construire l'Afrique, mais il faut arrêter de rêver. Réglons d'abord ces problèmes-là. Je ne juge personne, mais nous devons régler toutes ces questions. J'ai pris cet exemple sur la question du culte, sur la question de la foi. Vous êtes d'accord qu'on euh, ne s'accorde pas. Mais on peut ne pas s'accorder, à la limite. On peut ne pas être d'accord que chacun ait sa religion, c'est vrai. Mais elle est où la, tolérance Moi, les débats que je vois les gens tenir, ils ne sont même pas tolérants les uns envers les autres. Il n'y a pas de tolérance. Si vous n'êtes pas tolérant sur le plan de la foi, comment vous pouvez être tolérant sur la construction d'une Afrique unie il ne faut pas rêver. On manque de tolérance entre nous-mêmes. C'est complexe. Et j'ai pris qu'un seul exemple. C'est la religion. Tu vois, au niveau de la culture, tu penses que les uns vont laisser leur culture pour aller épouser la culture des autres Quelle sera la langue africaine qui sera parlée Vous le savez là, si on devait réunir l'Afrique, c'est quoi quelle sera la langue Quelle langue on va, on, va, on va prendre pour en faire une langue africaine Dites-le moi. Dites-le moi. Il y en a qui disent Swahili, il y en a qui disent le Lingala, il y en a qui disent autre chose. Nos pays africains ne peuvent pas s'entendre. Et souvent, ceux qui parlent de panafricains, chez eux, là, c'est la dictature encore. La plupart de ceux qui sont forts là dans les réseaux, euh, quand tu vas chez eux, c'est encore des présidents qui ont fait 40 ans, 50 ans, des présidents dictateurs, des tueurs. Ils ne sont pas capables de les enlever. Réglez d'abord ces questions-là. Réglez d'abord les questions de démocratie interne. Faites en sorte que dans vos pays, là, que les gens mangent à leur faim, que les gens puissent voter, qu'ils puissent choisir le président qu'ils veulent d'abord. Après cela, quand vous allez mettre des présidents patriotes à la tête de leur pays, de vos pays, là, on sera ensemble avec les nôtres pour discuter de comment faire avancer l'Afrique. Oh, dans chaque pays individuellement pris en interne, il y a des problèmes colossaux dans chaque pays africain. Il y a tellement de problèmes à régler. Après, les gens, ils laissent ces problèmes-là de côté pour nous parler d'unité africaine. Mais vous êtes des utopistes, vous êtes des gamins. L'unité africaine, ça demande énormément de tolérance, énormément de tolérance. Et les Africains ne sont pas tolérants. Et tu leur dis la vérité, ils t'insultent. Ils n'aiment pas la vérité. Ils te jugent. Ils te, tu vois, ils t'assassinent. Ils t'injurient. Mais sous ça, ils ne sont pas tolérants. Ils ne peuvent pas entendre la contradiction. Ils n'aiment pas ça. C'est quoi ça vous voulez, construire une affaire dans la violence verbale, physique et tout ça Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous, on a des problèmes, nous, à régler chez nous on a deux fêtes de Tabaski, deux fêtes de qualité. on a plein d'événements, on a plein de cultures chez nous, on a plein de choses à faire. Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, on a tellement de choses à régler dans ce pays-là que nous ne pouvons pas nous permettre d'aller parler de l'Afrique encore. Il faut régler des... Il y, il y a un minimum de cohérence Voilà, c'est souvent des gens qui ont accès à Internet. Ils nous tympanisent avec l'Afrique, l'Afrique. C'est bien, moi je suis d'accord, hein? il faut aller, il faut construire l'Afrique. Moi je ne suis pas contre l'idée, je suis pour effectivement une union. Parce que plus on est unis, plus on est fort. Mais quelle forme d'union Qu'est-ce qui doit nous réunir C'est ça qui m'importe moi. Ce n'est pas l'union en tant que telle qui me pousse à parler, mais je réfléchis de façon beaucoup plus profonde pour dire qu'est-ce qui doit me réunir à l'autre Qu'est-ce qui doit être que voilà, moi, je me dis, écoute, il faut que je sois avec l'autre. Pourquoi Comment Par qui Quoi Ces questions-là, on doit les répondre. Il y a tellement de division, tellement de haine, tellement de trahison, tellement de lâcheté, tellement de traitise. C'est la vérité. Partout en Afrique, c'est comme ça. D'ailleurs, si les Français et les Occidentaux ont réussi à nous diviser à tout ça, mais c'est parce que, c'est parce que c'est parce qu'on n'est pas capable de, de réfléchir de façon scientifique, d'organiser les choses, d'être solidaire et tolérant, de nous aimer. C'est pas possible. Voilà. Nous sommes donc défaillants. Nous ne sommes pas capables de nous donner les moyens de notre combat. Nous voulons une chose, comme un enfant qui veut quelque chose. Euh, Papa, je veux ça. Papa, achète-moi ça. Ah, papa, oui, il crie. Tu sors avec ton enfant dans, les magasins, il voit quelque chose. Papa, je veux ça. Si c'est un enfant mal élevé, il va passer son temps à crier. Il va crier là-bas, ouais, il faut ça ou je rentre pas. Il va crier tout ça. Mais si c'est un papa irresponsable, il va céder, il va acheter. Parce que l'enfant est mal élevé. Mais si c'est un papa responsable, son enfant n'ose même pas crier. Quand tu lui dis non, il va savoir que c'est non. Mais un enfant qui veut quelque chose, il va crier. Oui, papa, il faut ça, sinon, voilà, il t'aime pas tout le monde dans le magasin. Parce que l'enfant a été mal élevé, il n'a aucune conscience. Il veut, mais il ne sait pas comment. Il s'en fout. Le papa qui paye, lui, il sait comment avoir l'argent pour payer, mais l'enfant, il s'en fout. Et la plupart de certains panafricains, ils sont comme ça. Ils crient l'Afrique, l'Afrique unie, mais ils ne savent pas comment construire l'Afrique. C'est comme des petits gamins comme ça. Le papa qui paye, lui, il sait comment il a l'argent, il ne le ramasse pas par terre. Il sait l'objet, combien ça vaut, est-ce que lui, il peut le payer ou pas dans sa poche. Mais l'enfant, lui, il s'en fout. Il cherche que ce qu'il veut. Point. Il n'a l'a pas écrit. Et la plupart de ceux qui parlent d'Afrique, là, ils sont dans cet état-là comme des bambins comme ça il faut que ça cesse il faut qu'on monte les paliers il faut qu'on s'organise il faut qu'on soit plus dans la science dans l'organisation dans la méthode pour pouvoir y arriver mais pas dans l'émotion Effectivement, je suis d'accord, il faut préparer les générations futures. Il faut investir dans la nouvelle génération, les enfants, créer des écoles, dans certains pays qui, peuvent le faire. Mais tu ne peux pas le faire au Congo, tu ne peux pas le faire au Congo, tu ne peux pas le faire au Gabon. Ces pays-là ne sont pas encore dans leur souveraineté tous les pays qui ont, qui ont accès à la souveraineté, il faut qu'ils créent une nouvelle école, une école basée sur l'apprentissage de nos cultures, l'apprentissage de tout ce qui nous permet d'être tolérants, de nous accepter les uns des autres, de, nous aimer, tout ça. Ça, c'est une culture, c'est une école qu'il faut créer, c'est une mentalité. Et ça, il faut commencer à le semer dans les pays où euh, ils ont réussi à imposer des gouvernances donc, euh, souverainistes. Oui, c'est un travail qu'il faut faire. Mais ça ne se décrète pas, ça se travaille il y a des étapes, ça ne se décrète pas. En effet, c'est l'anarchie. Il dit en Afrique, tout le monde est spécialiste. Mais voilà, c'est pour ça que c'est pas facile. Surtout que maintenant, on a Internet, euh, réseaux sociaux, tout le monde est spécialiste, tout le monde est expert, tout le monde parle. Et plus il parle, plus c'est l'anarchie. C'est ça le problème. Il faut créer une nouvelle école africaine, une nouvelle école dans chaque pays, qui apprend à ses enfants ce qu'il faut apprendre à ses enfants. Parce que l'Afrique, c'est un idéal. Un idéal, c'est une culture. Une culture, ça s'apprend dès le bas âge. C'est un état d'esprit qu'il faut mettre dans la tête des enfants. C'est une vision, c'est un imaginaire, c'est une culture, c'est une philosophie. Il faut donc inculquer tout ça à l'enfant dès le bas âge. On n'a pas encore, nos programmes scolaires euh, sont conçus au niveau de l'UNESCO à Paris nos ministres de l'éducation, chaque deux ans, Assemblée générale de l'UNESCO, pour concevoir le programme scolaire de nos enfants avec la langue française ou l'anglais, tout ça. Mais vous <laughs> êtes là, criez, criez, criez. Tout à l'heure, je parlais Wolof, on me dit il faut parler français. Et celui qui te demande de parler français, c'est celui qui te dit Je suis panafricaniste, hein. oui, en bas la France. Mais pour t'entendre, il te, il, te, pousse à parler français. Si tu parles dans ta langue à toi, il ne te comprend pas. Donc tu as vu là tu as vu, le, tu as vu le problème Vous avez vu le problème là Je parlais dans ma langue, moi. On me dit Il faut parler en français. Parce que si je ne parle pas français, l'autre Africain ne me comprend pas. Donc même pour nous unir, nous, les Africains, on est obligé de passer par la langue française. <laughs> vous vous rendez compte Réfléchissons encore, arrêtons de... Voilà. On est maître de rien du tout, parce qu'on est dans l'émotion, on ne fait pas le jeu dans la science. Voilà, des invectives, des tu m'as tout ci, tu m'as cela, tout ça, jugement, tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut que ça cesse. Tout à l'heure, j'ai parlé en Wolof. Certains m'ont dit, il faut parler en français. Parce qu'il y a des panafricains peut-être qui sont là, qui veulent comprendre, mais ils ne parlent pas Wolof. Donc, rien que ça est un exemple de ce que je dis, que l'Afrique est une complexité déjà pour pouvoir s'asseoir et discuter sur, la, base de quelle langue nous allons discuter. Si je suis moi, je dois parler avec les Congolais, les Sud-Africains, les Éthiopiens, les Maliens, tout ça. Euh, mais euh, en dehors du français, en dehors de l'anglais, on va parler comment Si on devait discuter en tant que panafricain en dehors des langues occidentales, français, anglais, arabe, on parlerait, on allait s'entendre. Comment on s'entendrait Dites-le moi. Dites-le moi comment nous, Africains, on peut nous organiser, ne serait-ce que le dialogue, discuter. avec quelle langue nous allons discuter En dehors de l'arabe, l'anglais, les, les langues étrangères, en dehors de ces langues étrangères-là. Quelle est la langue en Afrique qui peut nous permettre de nous asseoir autour d'une table pour parler de notre avenir, nous Africains Dites-le-moi. C'est une question que je pose à tous les pan panafricains. Parce que vous aimez être dans les émotions. Moi, je vous rabaisse sur des faits factuels. Je vous donne, je vous pose des questions. Je veux que vous me répondiez sur ça. Ce sont des problématiques factuelles. Ce sont des réalités que vous ne traitez jamais. Dites-le moi. Mais personne n'a la réponse. Personne. Donc vous voyez que c'est un problème, que l'Afrique est une complexité. Vous êtes d'accord avec moi C'est ça, c'est un exemple. L'éducation en Afrique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que c'est l'Occident qui a construit notre modèle éducatif et ce modèle éducatif ne nous développera jamais. C'est un modèle qui te permet d'aller en France, aux États-Unis, d'être dans leurs écoles, de dire que je suis PhD, je suis docteur, patati On a tellement de PhD, on a tellement de docteurs, mais à quoi ils nous servent Dites-le moi. Dites-le moi. Alors qu'on a des petits génies là qui inventent des voitures, qui inventent des machines, qui inventent des trucs, qui n'ont même pas été à l'école, qui sont des trucs. On s'en occupe pas. Parce que voilà, ils n'ont pas été à Harvard, ils n'ont pas été à Princeton, ils n'ont pas été à London, euh, London School of Economics, ils n'ont pas été à la Sorbonne, ils n'ont pas été à Yale, ils n'ont pas été, ils n'ont pas été, parce que c'est ce complexe-là que l'Occident a mis en tête des Africains. Alors qu'on a chez nous des génies qui sont là, pieds nus, des gens qui méritent d'être poussés, tout ça, mais on s'en fout. Mais le modèle, c'est quoi C'est le modèle occidental. Oui, plus tu es diplômé, plus tu, as, tu es bas de diplôme, plus tu as de la valeur, plus tu es certifié sur cela. Voilà, ça c'est le modèle de l'Occident. Voilà. C'est ça la vérité. Assujettissement, acculturation. Voilà. Ce sont ces questions-là qu'il faut d'abord régler. En interne, chaque pays doit régler ces questions-là. D'abord, chaque pays. Chaque pays, on a des génies partout, même ceux qui souvent arrivent à réussir dans leur domaine. Souvent, ils sont en Occident, ils servent l'Occident, l'Occident utilise leurs intelligences, tout ça. Ils sont dans la recherche-développement en Occident, ils, contribuent au développement de l'Occident, nos pays africains, rien du tout. Après, on ne parle l'unité africaine, mais l'Union africaine existe à Addis Abeba depuis combien de temps Qu'est-ce que, l'Union africaine a produit L'Union africaine ne produit rien. La CDAO ne produit rien. L'IMOA ne produit rien si le peuple lui-même ne, produit, ne produit pas euh, le minimum, c'est-à-dire envoyer vers ces institutions-là des présidents démocrates, des présidents souverainistes, des présidents panafricains, des présidents qui sont bien portés par leur peuple. Donc le travail se fait d'abord en, amont, au niveau donc de la base, au niveau de chaque pays, chaque peuple. Nous les Sénégalais, nous nous sommes battus. On était comme tout le monde. On avait depuis ans jusqu'à Macky Sall, ce sont des présidents marionnettes qui étaient au service de l'Occident, voleurs, pilleurs, menteurs. On s'est battu. À chaque fois, on a élu, on a eu des déceptions. À chaque fois, jusqu'à l'avènement de président Ousmane Sonko, qui lui-même est une création de cet état de fait. Ousmane Sonko est la conséquence de cette politique euh, extravertie de notre modèle de développement économique qui ne sert qu'à l'Occident. Ousmane Sonko, sa création, son avènement dans la géopolitique est une conséquence de cette mauvaise politique occidentale de colonisation et de néocolonisation. Ousmane Sonko est un élément qui dit ça suffit maintenant, ça ne peut pas continuer. S'il n'y avait pas cette politique de domination française, Ousmane Sonko ne se serait pas engagé en politique. Ousmane Sonko est un produit de, cette, mauvaise politique qui a, produit Ousmane Sonko. Et à partir de tout ça, Ousmane Sonko s'est rebellé. Il s'est levé, il s'est offusqué de tout ça avec courage, avec détermination, avec engagement, avec intelligence, avec tact, avec stratégie, mais avec connaissance, pour aujourd'hui imposer un nouvel état d'esprit dans ce pays. À partir de là, il y a une nouvelle dynamique qui s'en est découlée. Et avec cette dynamique, nous avons bouté Macky Sall dehors. Et ce pays est aujourd'hui entre les mains de vrais patriotes. Ce travail-là, ça doit faire école dans tous les pays africains. Les pays africains doivent regarder ce qui s'est passé au Sénégal. Nous avons fait face à un régime qui a tué, un régime qui a assassiné, un régime qui a emprisonné, un régime qui a coupé des pieds et des jambes, un régime qui a fait peur, un régime qui a utilisé l'armée, la gendarmerie, la police, les lobbies, tout ça. Le, régime a utilisé tous les lobbies, maraboutique, griot, Homme d'affaires, l'armée. Le régime de Macky Sall était le dernier maillon de cette euh, Afrique soumise. C'est terminé au Sénégal. C'est fini. D'ici 100 ans, aucun président sénégalais ne sera de ce système-là. Ce système-là, nous l'avons terrassé, nous l'avons enterré, c'est terminé. Alors, j'invite tous les pays africains à s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal pour faire pareil. C'est en ce moment-là seulement que nous serons dans les dispositions de nous retrouver autour d'une table pour aller vers le palier supérieur, vers l'intégration africaine. Mais il ne faut pas rêver. Il nous faut avoir des Ousmane Sonko dans chaque pays. Il nous faut avoir des gens courageux, des gens désintéressés, des gens qui aiment leur pays, des gens qui s'engagent pour la patrie, comme Ousmane Sonko. Il nous faut des Ousmane Sonko au Congo, il nous faut des Ousmane Sonko au Gabon, il nous faut des Ousmane Sonko euh, en Sierra Leone, en Éthiopie, partout. Il nous faut des Ousmane Sonko partout. C'est comme ça seulement que nous arriverons à construire cette Afrique que nous voulons. Mais si on a des dictateurs, des tyrans, des, des, corrompus, des gens qui sont soumis à l'Occident, on ne réussira rien du tout. Voilà. Donc je vous invite vous les panafricanistes, là, vous passez votre temps à dire oui, Ousmane Sonko doit aller à l'AS. Ce n'est pas à vous de dire où Ousmane Sonko doit aller. Quand Ousmane Sonko s'est battu, il n'a pas fait appel à vous. Ousmane Sonko ne vous connaît pas. Ousmane Sonko s'est battu au niveau interne dans ce pays-là. Il a convaincu ses compatriotes. Il a donc construit un projet. Il l'a vendu aux Sénégalais. Les Sénégalais l'ont acheté. Il est allé avec les Sénégalais pour aller concourir le pouvoir avec courage, avec détermination. Ça, ça doit inspirer chaque Africain pour que de pareilles choses se passent dans leur pays, de façon à ce qu'au-delà de tout ça, qu'on puisse nous retrouver. Mais il ne faut pas rêver. Vous n'êtes pas capable, certains, de faire ce travail-là chez vous, dans vos pays respectifs, et vous voulez maintenant qu'Ousmane Sonko vous écoute pour faire quoi Non Non On ne fera pas l'erreur. Nous sommes conscients de ce que nous voulons. Nous avons une claire vision de ce projet-là. Personne ne nous fera pression, que ce soit dans les réseaux sociaux, tout ça. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas les panafricains qui ont voté le 24 mars 2024 à, au Sénégal pour élire Bassirou Ce n'est pas les panafricains qui ont voté. Même s'ils ont soutenu le combat, on les a remerciés, ils ont beaucoup fait tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont soutenu le combat que maintenant ils vont nous dicter la voie à suivre. Non. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Pour vous dire simplement que euh, la question du franc CFA est une question que nous allons gérer d'abord en interne, au niveau de la, au niveau donc de, la Banque centrale et de l'IMOA. Donc cette question sera traitée. Le leadership du président Bassirou Diomaye inspiré par l'engagement, la détermination du premier ministre Ousmane Sonko, vont pour bientôt permettre à l'État du Sénégal d'engager des, actions et des démarches au sein donc de ces organisations-là, IMOA, CDAO, la Banque centrale, pour impulser une nouvelle approche panafricaniste et souverainiste, de façon à ce que la gouvernance de la monnaie soit une gouvernance des pays membres, une gouvernance souverainiste, une gouvernance qui ne fera l'objet d'aucune souffrance une gouvernance qui permettra au peuple africain, au peuple donc de ces organisations-là, d'avoir encore confiance à ces organisations-là. Parce que ces organisations-là nous intéressent. Ce sont de très bonnes organisations, du point de vue conceptuel, du point de vue stratégique, mais c'est dans la mise en œuvre, c'est dans la pratique que ces organisations sont infiltrées. Eh bien, nous allons travailler à ce que ces organisations, ces organisations nous reviennent de droit, en toute souveraineté, de façon à ce qu'on puisse, nous, orienter ces organisations vers nos objectifs de développement économique et social. C'est ça l'enjeu. Et ça, la diplomatie sénégalaise, conduite par son excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, inspiré par le travail, l'inspiration, et, euh, comment dirais-je, euh, l'abnégation du, président, du, du Premier ministre Ousmane Sonko et le peuple sénégalais, nous arriverons aujourd'hui à redorer le blason de la CDAO, de l'IMOA, de la Banque centrale, de façon à ce que nos pays respectifs, membres de ces organisations-là, se développent convenablement en dehors de toute main étrangères. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Nous allons y travailler et nous allons le réussir. Nous allons réussir ce challenge. Et si je vous le dis, il faut le croire, nous avons l'expertise, nous avons la méthode, nous avons la diplomatie, nous avons le leadership. Maintenant, au cas où on n'y arrive pas, là on passe à, l'étape, à, la seconde étape. Oui, si on n'y arrive pas, on passe à la seconde étape. La seconde étape, d'accord, on va claquer la porte et nous allons y aller tout seul. Oui, mais ça je ne le souhaite pas. C'est une option que moi je ne veux pas. Moi, je suis pour la première option, parce que moi, je suis un panafricain. Donc, je veux tout ce qui nous réunit, tout ce qui nous rassemble. Je suis pour. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on garde la CDAO, à ce qu'on garde la LIMAWA, à ce qu'on garde l'Union africaine, à ce qu'on garde la Banque centrale ou la BEA, tout ça. Mais, gardez oui, mais à notre convenance. Ni la France, ni personne d'autre ne viendra nous financer nos, budgets de, de fonctionnement. L'Union africaine, ce sont les Chinois et l'Union européenne qui financent. Vous vous rendez compte c'est pas possible. Il faut que les pays africains soient sérieux. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de financer euh, la CDAO. Le, budget de fonctionnement de la CDAO est financé en partie par les, par les Américains, l'Union européenne et les Chinois. Vous vous rendez compte Mais n'est pas sérieux. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit sérieux. On critique les Occidentaux, tout ça, mais nos présidents de nos pays, nous les Africains, on n'est pas capables de financer nos organisations du point de vue de leur propre fonctionnement. Il faut la Chine, il faut les États-Unis, il faut l'Union européenne pour que la CEDEAO fonctionne, pour que l'Union africaine fonctionne. Vous vous rendez compte Avec toutes les richesses qu'il y a dans ce, dans ce continent, on n'est pas capable, alors que nos présidents sont les hommes les plus riches au monde. Ils se sont tellement enrichis, immensément enrichis dans la corruption et tout ça, mais ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables de financer nos organisations. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte après, vous êtes là à tirer sur la France, sur la Chine, sur tout ça. Oui, c'est bien. Mais puis, on avance sur nos tyrans, nos dictateurs, nos voleurs de présidents. Réglons d'abord ces questions-là. Vous n'êtes pas capable de régler ça. Après, vous voulez tirer sur la France, vous voulez tirer sur les Chinois, vous voulez tirer tout ça. Mais ces pays-là, ils ont des patriotes, ils ont des présidents, ils ont des ambitions, ils ont réussi à mettre à la tête de ces pays-là des gens qui travaillent pour eux. Et ces gens-là vont aller en Afrique pour chercher de la richesse. Ils ont parfaitement raison. les Africains ne sont pas capables de, de, de se défendre eux-mêmes, de défendre leurs intérêts. Mais ils sont là, soumis à la corruption, à la concussion, à, l'assujettissement, à servir l'Occident. Mais c'est ce travail-là que nous devons faire en tant que faire en sorte qu'on ait des Ousmane Sonko partout. C'est tout ce que j'avais à dire, moi. Donc, il fallait que ait tous les ci pour que ce suñu mbokk panafricain qui ait le même wax aussi parce que voilà de France de ké mais beaucoup de bëggee Tu vois, France a des ñuy là. pour l'instant on n'est pas capable de créer une langue pour xam ne voilà moi, tax que nga may wax non français parce que ñen ñi dans la sous-région ñom français dégg donc donc gis nga problème c'est profond xel moo koy xam-xam ak ak bañ a ak bàyyi réseau yi di ne amoo ci xam-xam xam-xam ak problème bi problème Sénégal problème Mali problème ak problème euh, Gabon ku nekk ak sa problème problème bi mënoo ko régler de façon globale da ko régler de façon intelligente da ngay xool ñi bokk nga boole leen ñi bokkul problème nga bañ leen boole lii mën nañ ci lii ànduñu ci lii ñu ànd ci lii ànduñu ci ñu def ko petit à petit ndànk-ndànk dañuy dem a dem ba benn jamono ñu li ñu bokk gën a bari li nga xam ne bokkuñu ko su boobaa àndandoo bi day gën a dëgër affaire yi étape par étape la Afrique bi ñu bëgg man mii di wax du ma fekk yow mi at lañ ko tabax union européenne xëy ñu xëy tabax daf leen dànk de tabax ab continent ñu nekk benn yomb te ba léegi sax union européenne ñu bëgg ba léegi amuñu fa gis ngeen anglais yi génn nañ brexit ba léegi ñii day dugg di génn ñii dugg di génn àndandoo yombul te ñoom ñëpp ay tubaab lañu mais taxu ñu ànd Suisse duggul ci biir ba léegi kenn ku nekk yaa ngi taxaw donc àndandoo yaakaar na ñoo bokk der bu ñuul wala ñoo bokk ab continent da loolu doyul c'est c'est bien mais c'est pas suffisant kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp lañ jox seen wàccuwaay loolu rek lañ bëggoon a am lu ñuy wax xam leen ne bu leen dégg ay panafricain ay laay CFA ba ngeen complexé déglu leen ñi ngeen war a déglu Ousmane Sonko connaît maîtrise bien ces sujets il est entouré par des experts en la matière xam na bu baax li muy def xam na fi mu jëm Bassirou Diomaye Faye euh, waxi nopp bu leen déglu ñi nga xam ne yoruñu état yoruñu nguur yoruñu parti politique mënuñoo li ñu yor ajurum ngooñ ñoom ki seen bopp mënuñu mënuñu seen bopp dara amuñu xam-xam ci dara amuñu fitu taxaw assumer ut ay parti politique xeex ci seen dëkk yi nekk ba fu falu mel na Ousmane Sonko toog ci réseau yi di mbell mbell mbell c'est très facile Ousmane moom la mu bëgg ba mu ko bëggee dafa génn taxaw xeex waaye toog ci réseau yi di wax dafa yomb on sait ce qu'on veut on sait où on va confiance ensemble en tout cas waxuma Afrique de mais Sénégal moom moom ñun man sama priorité moo defal Sénégal man jiwuma jiwuma kenn di ko defal bay ci sa wewu tànk man su ma xëyee sama buntu kër laay bale soo ko dem feneen jiwuma di bale buntu kenn kenn ñun sénégalais yi nañ fexe ba tabax suñu sénégal bi ba sénégal toll foo xam ne bu demee génn seeti mu yeneen i moromam dana mën a ànd ñoom te du sëgg ci lépp lu ñu war a tabax jëmale ko ci afrique nañ tabax d'abord suñu réew ba mu taxaw am dëgëraay boo xam ne bu ñu demee ëllëg di waxtaan waxu afrique du ñu fa nooy du ñu fa nekk yemb ak kenn du ñu fa nappaaje man ci loolu laay liggéey de na si ñëpp taxaw le combat continue vive le Sénégal vive les Sénégalais vive le patriotisme vive donc nos leaders présents, Bassirou Diomaye et le et le premier ministre Ousmane Sonko ensemble on gagne Inch'Allah, il ñu ziar di leen Ah, apparemment, il y en a qui, veulent, euh, qui voulaient rentrer. Ah, ouais, j'ai vu. Euh, j'ai vu Kaiz. Il y a qui d'autre Ah bon Bon, je sais pas. Je voulais couper, mais apparemment, il y en a qui. La femme, dugo Non, c'est pas grave. Il n'y a personne. Ok. Ah bon Oh oui, mais je suis avec mes enfants là que j'amène au resto. Bon, attendez, attendez, attendez donc. Je sais qu'il y a un peu de Moi je vite fait. Attendez un instant, attendez un instant. allo oui ben je voulais vous laisser hein, mais dans mon bëggoon bàyyi ngeen ne lan madame. ma dem. Ah bah moi j'ai fini hein. donc on a une bàyyi quoi je vous laisse et puis à la prochaine quoi. allez jaajëf jaajëf merci. askan bi dinañ ko fas yéene waxtaanee ci seen matinal SN ñu ànd euh, ci Cha su nekk ak Babacar ak Mohamed Diallo donc dañuy dugg ci rénkum bi fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllum OFNAC bi nekk na lu nga xam ne soxal na le président Bassirou Diomaye fay ba mu tax sax mu gisee ak ki nga xam ne euh, moom moom la ñu tuddee Nafi Ngom Keïta jiite woon bu yàgg li nga xam ne moo di OFNAC am ay kàddu yu nga xam ne jokkalante na ko ak moom. bëgg sax ñu indi ay réforme lu jëm ci wàllu boobee Babacar yaa ñu ci gën a indi ay yaatal. waaw euh, ci li ñuy wax tigi de mooy président de la bëgg-bëgg gi mu am mooy nan lay def jox nag doole bi nga xamante nii moom la ñu waxoon ne moom lañ koy euh, moom lañ ko sumbi woon ci atum 2012 parce que par décret yu président de la moom mi nga xamante ni moo ko sosoon. Mm-hmm. loolu moo doon yéene bi nga xam ne jotoon nañ ci am. leneen loo xam ne jot na caa bokk moo di atum 2023 am na ci boo xam ne yeggoon na ci pincum ndaw réew ma mhm. boobu dafa duggoon dans le cadre du renforcement ci li nga xam ne moo di ay capacité wala doyo bi nga xamante nii moom of nag ci jëmboom jot na ko am mais boo koy xool bu baax daanaka différence bi bariwul parce que lépp dafa tënkuwaat déjà dans l' article 3 bu OFNAC bi nga xam ne notamment dafa dellusiwaat ci prérogatives ci baree bari jot na ko da koy dugalaat encore ci li nga xamante ni moo di cadre d' de ces missions bi nga xamante ni of nag ci jëmmam jot na ko am waaye lii la yëpp bu ñu ko tegee faaw xel day dem ci ki nga xam moo di mhm. ne jotoon naa euh, ni ñagas-ñagas jotoon naa am diggam ak ki nga xamante ni moom moo ko dénkoon boobule màkkaan waaye ci santaane yi nga xam ne amaloon na ko également ci ndoddam mhm. li ni mel tamit nag dafa dellu si waatoon ci kane la ko gënoon a fësal mooy kane maître Omar Youm li nga xamante ni euh, yoon may ci li nga xamante ni noonu la of nag di doxee loolu moom moo déclenché woon hostilité yi nga xamante ni wala sax nag moo indi woon ay conclusion ginnaaw bi hostilité yi jotoon na door te loolu également loi bi nga xamante ni om nag euh, ci jëmbam jot na ko am dafa wax le contraire rek li nga xam ne moom la Omar yu mu waxoon ci waxtu woo ndax. Mhm. lu waa may na ko bu fekkente nii jot naa amal ay enquête ba ay rapport jot a génn te mu bëgg ci pour ñu siiwal ko wala ñu waxtaan ci askan bi te loolu antuwul moom ci jëm boppam yoon may na ko pour mu génn publiquement def li nga xamante ni moom moo tukkee ci yooyu te moom tamit ci ak yoon boobu noonu ci la nekkoon ngir amal li nga xam moo di biir mi te li koy gën a firndeel mooy article 13 bu nag bi nga xamante nii dafa tënku wax ne OFNAC peut se faire communiquer tout rapport.

ngir ay réformes yu bare bare ñi delluwaat ci. Mhm. mais pour mu amaat ben participation ci projet bi nga xamné mom la indi président de la république da mu nekk jub jubal waaye jubanti mhm. bëgg ci bolé tamit Nafi Ngom Keïta am apport am de sorte que li nga xamante modi ci walu ci walum corruption yi ñu xol of nak ban participation la ci wara a am bo xamné doolé giñ ko joxoon té mu nekkoon une modification bu article bu projet de loi bu ci 2023. Mhm. ñu gën ko renforcer waye nan lañuy ñuy def ba matérialiser ko. ndax moom nag nee nañ peut-être sax moom la ñu koy dénkaat waa wala déet mm. waaye loolu ba léegi di leeragul de toute façon daal mm-hmm. waxtaan jot naa am mais dañuy xaar exactement pour xam ëllëgi fan lay mm-hmm. mujjee ci incha allah Mouhamed waxtaan jot naa am ci dem ci le président Diomaye ak ki nga xam ne moo euh, na fi Ngom Keïta moom mi nga xam ne jiite woon na fi euh, ci ay at yu ñu dépassé euh, of nag mu waxtaan ak moom jëm ci wàllum ay réforme yu bees yu mu bëgg teg quelle nouvelle réforme pour solutionner les problèmes de corruption waaw xam nga euh, booy xool euh, diggante euh, soxna Nafi Ngom Keïta ak l'office national de lutte contre la fraude et la corruption mhm. mën naa wax ne ñoom ñaar dafa mhm. parce que en 2012 l'OFNAC euh, président Macky Sall dafa affiché une réelle volonté de lutter contre la fraude et la corruption euh, parce que aussi lors dafa ces instruments, instruments yi nga des te qui président Macky Sall euh, mais pour gagner a dalal xel ñi nga les bailleurs de fonds euh, et les partenaires techniques et financiers pour wax leen que c'est un pays qui on lutte contre la corruption parce que pour la kenn nax réew yi dafa ci a dalal xelu investiteur investisseur état de droit nous avons une stabilité parce que képp koo xam ne ni day dem si réew di fa ji bëgg na xam ndax fa muy ji pour ji am na dal boo xam ne nii mun na faa ji dara bu ko fi jiyee tamit ndax dina mën a am lu raw la mu fa jiyoon. ñu koy donc dal boobu noonu da si am mhm. solo. mais leneen li aussi moom mooy la lutte contre la corruption ak nangam parce que euh, nit ku ñëw sa réew di euh, di investir ak nangam buggul ñëw euh, par yenn yeneen moyen détourné

plan Sénégal émergent tamit dafa ñëwaat ci walu woowu noonu tamit am loo xam ne daf koo cërale bu baax baax lépp lu jëm si wàllum transparence da ngay gis ne la création de l'OFNAC ak plus tard le fait que ñu adhéré à l'ITIE ak nangam nangam loolu yëpp da nga koy teg sur la table comme des mm-hmm. arguments euh, yoo xam ne dañ koy mettre pour wax ne que le Sénégal s'est doté d'instruments euh, efficaces euh, pour mën a lutter contre la fraude et la corruption mm-hmm. mais loolu c'est théorique c'était l'intention affichée au départ par le président euh, Macky Sall, fraîchement élu, et qui disait que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, bon on parce que c'est le pôle financier euh, moment moo fi nous euh, ñu que c'était la volonté affichée waxoon ne que créé pour nous, ñi la. que mm-hmm. pour ñoon la loolu sax defe naa parce que dans une république juridiction pour ko pour ñëpp la euh, instrument de lutte contre la fraude et la corruption pour ne pour ñëpp mais alors, c'était mm-hmm. dans le contexte pour nous ko comprendre donc on koy replacer dans le contexte d'alors mm-hmm. mais bien de mes besoins biir avec euh, soxna Nafi Ngom le euh, problème yi problème de di surgir Moi li li nga xam te ni defe des rappelé nañ ko démb bi rapport yi etc. et parce que selon ces explications mu le président avait tardé à la recevoir pour mu jox ko rapport mm-hmm. au même moment euh, mi ngi doon recevoir ku si mel ni soxna Aminata Tall mi nekkoon la présidente du